waaw ah, match bu nar a boobu noonu nekk lu ñu jaaxal quoi na match bi incha allah dañ koy gérer te Sénégal lay qualifié incha allah suñuy dem ba prolongation sax moom dañ koy indi incha allah dañ koy gérer dañuy qualifié quart de finale. di ñaan yàlla rek dimanche. ñu gagné match bi. ak yeneen yi ci topp ba jël coupe du monde ñëpp kontaan Sénégal développé incha allah. waaw Sénégal Angleterre match la rek parce que bu ñu ko xoolee ci suñu match ñu nekk pays première journée bi waaw foofu war nañ ko mën a am jàngat boo xamante ne nii tey jii match contre euh, Angleterre bi la même chose lay mel parce que Angleterre nekk na équipe boo xamante ne nii équipe bu teewee bal bi rek dox sa kaw amaana mën nga jël ay bii parce que seen attaquants yi dañu gaaw trop lenn rek la ñu téye bal bi xañ leen ko ba pare ci seen zone loolu rek moo ñu mën a may dara mais bu ko defoon rek mën nañu indil ay problème yu bëree bëree bëri parce que seen attaque ay jeunes lañ ay xale lañ gaaw nañ te tamit xam nañ camp waaw bu buñ ko amee rek cadre bi dañ ko ci def man daal lool laa leen di lancé ñu génn xam nga bañ am benn complexe ak ñoom ñu football parce que 11 11 la quoi lool rek la buñ ko defee rek incha allah rabbi suñ borom nag mooy maye quoi mais mun nañu may ndam waa mais buñ taxawee xaar ko rek day xaw a métti ñu góor góorgóorlu rek ñu def nañu defoon rek yàlla baax na yàlla mi am ndam yal na leen yàlla may ndam ñu bokk ko ñun ñëpp te mu jik leen mu jik ñu ñun ñi di ko seetaan. waaw ah, di ñaan Sénégal suba ñu am ndam quoi waaw ah, suba moom instant yii lépp loolu lañ ñaan quoi ñun instant moom dëkk bi moom doxul te instant moom daa mel ni suñu ju eh, kii bëri supporter yi bëri dañoo teel a découragé quoi wante yàlla baax na xam naa ni moom suba mën nañ gagné. waa dañuy gëm suñu bopp gagné rek parce que boo xoolee bu njëkk ak léegi ça fait bu njëkk boo xoolee tubaab yi ñoom ñoom moomoon lépp mais instant africain yi nangu nañ ko seen loxo li ko waral mooy gëm seen bopp.

li ñuy def ñi yëpp dëgg seen bopp lay te man gëm naa am naa ngëm-ngëm dinañ yegg ba final wala quart de demi-finale du moins. oui bi daal comme ni ma ko gisee comme d'habitude nuñ ko def woon ci match bee passé contre Équateur Sénégal moom dagam doon na Équateur xam naa Angleterre nañ ko mën a door wax dëgg yàlla nag boo xoolee Sénégal équipe bu mag la mën a fubale boo xoolee Équateur ñu ngi fubal moom ñu ko fubalee contre Angleterre nañ gagné match bi incha allah moom gars moom am nañ ci yaakaar vraiment wax dëgg yàlla. non Angleterre du équipe bu ndaw foofu ñoo fa nekk ay Foden mais tamit dara ñu am nañu Ismaïla Sarr match bi passé wax naa ne Ismaïla Sarr lay dugal avant loolu noonu ñëpp gis nañ ko en ah, Omar ñëpp gis nañu Ismaïla Sarr dugal na après ku nekk li mu dugal stade waxoon nga ko waxoon nga ko mais bii paa mooy loolu noonu. Sénégal lay gagné incha allah. Sénégal l'a qualifié. même suñu dem ba prolongation sax <laughs> Sénégal l'a qualifié. Oui, oui, Angleterre loolu ay wax la rek loolu ay wax la loolu du dara C'est ce que la rek oui parce que ñun équipe bi ñu nous ñun xam nañ ko. équipe bi boo xoolee yenn dëkk tubaab championnat yu mag yi africain ñoo koy toj te africain yi si vous équipe yëpp nii Sénégal li mu am ci étranger africain yu bëri amuñu ko kon ñun war nañ mën a indi équipe bi. Angleterre équipe bu mag la mais Sénégal tam équipe bu mag la. bon ñun Sénégal la ñu gën a yaakaar que Angleterre Angleterre comme pomme de terre mais Sénégal la ñu gën a am yaakaar que Angleterre ndaxte la Angleterre mun Sénégal mën na ko war nañ ko mun a door ci fulla ci fulla parce que lañu ñu mën ñun moom la ñu mën su ma neexee sax ne mën nañ ñoom la ñu mënul ndax ñun am nañ ko ci naaj bi am nañ ko ci glace bi am nañ ko ci sedd bi am nañ ko ci tàngool bi. non moom tey moom journée bi moo xam nu fu demee noonu. daa mel ni bi dañ ko dañ ko ragal quoi wante moom am naa ci yaakaar moom su moom nañ gañ incha allah nañ qualifié quoi dem quart de finale allah. ñu ñu waajal yëf yi rek ñu waajal ambiance yi te xam ne fii ko coupe bi su fi ñëwul tamit dañ ko jege de il faut ñu yëngal dëkk nañ ko mën a dóor moom match moom 2-0 moom. ni ko doxalee woon baax na incha allah ñaan yàlla bi bit rek bit yu bari rek. non message may lancé nag mooy lépp lu mën di am daal nañ ci boole gëm yàlla quoi loolu daal laay lii nii te dañoo war a yëngal daal ndax Sénégal incha allah su waree gagné loolu man maa ko wax Karambas ñor quoi. man ñaar laa gis quoi ñaar ñaar laa gis quoi ñu dóor ko ñaar <laughs> première mi-temps ñu lonk ko un deuxième mi-temps ñu fatt taxaw. <laughs> maa ngi leen di wax ñu def seen képp laay kàttan indi ñu coupe bi ak deux baax moom man gëm naa ni deux buts moom deux zéro lañ leen di dóor amul sax négocier. deux zéro ndax ñun dañoo gëm suñu bopp en fait ñoom dañoo jël euh, def ñu ay kii daal suufeel ñu te ñun ay vrai gaynde lañ incha moom dañuy gën deux zéro maa la ko wax. gaynde ay jàmbaar lañ ndaxte ñoom ñu ngi jéem lu ñu mën te macha allah buñ leen yokkalee ñaan rek buñ leen yokkalee ñaan rek li ñu bëgg dinañ ko am incha allah yàlla dinañ am ndam. Sénégalais yi daal li ma leen lancé ne ñëpp génn. supporter leen ñëpp génnee drapeau yi supporter leen te sànni leen ñaan te xam ne Sénégal ca kanam rek la jëm te gaynde yi moom ñooy buur àll bi te kuñ dajal ci kàttanu yàlla bu ñu wanee li ñu mën rek ak jom dinañ am ndam incha allah. ATV ah, macha allah daal ñu tey bi jëm sa kaw sa kanam incha allah ñu ngi leen di remercier en fait ñu ngi leen di remercier. ñëpp esprit di di Dorando. non violence di ñaan Yalla, ñëpp supporter concernant le match sénégalais je suis vraiment contente pour les Lions et je les encourage parce que vraiment ils ont fait de Sénégal un pays vraiment vraiment je ne peux pas m'exprimer car je suis très contente suis très contente car ils ont fait des choses. ils se sont sacrifiés pour seulement gagner le coup. Je suis vraiment contente pour eux. Ils font tout pour remporter la Coupe du Monde. Je les encourage. dem leen ba dem